yéenekaay bi ne waa conseil constitutionnel kay jamono ji nag jël nañu seenub dogal ba noppi nag di sàkku ci kilifa yi ngir ñu jàpp datub élection yi nag ci nu mu gën a gaawee waaw waaw juróom-ñaari sages yi kay jamono ji nag dàq nañu nag report boobee nga xam ne rek moom la ñu bëggoon a amal ñeel élection présidentielle yi ci biir yëglekaay bi di Vox Populi nag lépp delloowaat nañu ko ca fa mu nekkoon yéenekaay bi ne moom kay soowe nañ président Macky Sall ubbil ko bunt boo xam ne rek mën na caa jaaree ngir saafara crise bi am fii ci réew Sénégal décret boobee nga xam ne rek moom lañ naroon a jaaree daal di dàq élection présidentielle yi nag daal dinañu koy annuler nag lu ñu bëgg jamono ji rek moo ñu daal di gaaw jàpp dat boo xam ne rek ca la ñuy amal élection présidentielle yi mu di ab dogal goo xam ne rek dara gënu ko sage bu ñu sukkandikoo ci bës bi la jour mi ne conseil constitutionnel kay jamono ji nag ma ngay woo président Macky Sall ngir mu jàpp ab date ki nu mu gën a gaawee nag bu ko defee ñu mën a amal woo wootee njiitu réew mi nag yéenekaay bi ne Cheikh Ndiaye mii ñu daal di tuumaal lu jëm ci wàllu ger nag moom bokkul ci ñi nga xam ne rek ñoo doon siégé yéenekaay bi ne Karim Meïssa Wade mi doon tëb di dal boobaak léegi nag jamono jamono ji mooy le grand perdant kii di Rose Wardini moom mi ngi ci ay jiixi jaaxa ci biir yëglekaay bi Abdou Mbow ma ngi fa yëkkati ay kàddoom ne la mu xalaat nag ne moo waral ñu jël bi la dogal bokk na ci defante gi nga xam ne rek doxoon na ci seen digganteeg ñii di waa assemblée nationale direct news nag ne lii moom ab revanche la rek bu bàyyeekoo ci conseil constitutionnel ginnaaw bi ñu leen tuumalee nag ñoom ñaari juge yi jëm ci wàllu ger nag juróom-ñaari sage yi yéenekaay bi ne nag seen ceellaaral gi daal dañu doon xaar rek bés bi jot ngir ñu daal di tontu waa ak yëglekaay bii di Vox Populi nag Alioune Sall mi rakk ci président Macky Sall nag naan fa alhamdulilah conseil constitutionnel nag dafa jël ab décision bi gën nag ngir Sénégal am ci mënti doon daal président Macky moom faaw rek mu tënku ci dogal gi nga xam ne rek moom la juróom-ñaari saa yu jël ci biir yëglekaay bi di Le Quotidien kilifa yi nag fi mu toll nii ñoom rek la ñuy déglu ngir ñu daal di xamle nag ban date la jàpp ngir mën a ci la jongante Karim Meïssa Wade nag ana lu muy wax waa koñ ba loolee nag léegi-lekaay bi daal xamle ginnaaw bi ñu jàppee ne nag moom moo ca gën a perte ñépp nag jamono ji ka ñuy déglu rek mooy président Macky Sall nag ngir xam ana ban taxawaay lay jël la yëglekaay bi di laas nag ne taxawaay bi mu war a jël nag bokk na rek ci tënku ci dogal gi nga xam ne rek moo bàyyeekoo ca conseil constitutionnel ginnaaw bi ñuy dëggal ñoom juróom-ñaari sages yi nag ne crise am na ci réew Sénégal waral nag ñu daal di neenal nag loi bi nga xam ne rek dañu ko woote ci assemblée nationale ngir dàq élection présidentielle yu ñu waroon a amal ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février atum 2024 Sud Quotidien faylu ko ne juróom-ñaari sages yi kay jamono ji nag kase nañu lépp nag kii di Jean Charles Biagui nag di xamle ci biir yëglekaay bi di Sud Quotidien ne dogal gu ñu mel daal ab camoufle rek la ci pouvoir bi Ndiogou Sarr di ab enseignant chercheur en droit public na conseil constitutionnel nag la mu war a def rek la def te mooy appliquer lii du droit wax lu jëm ci wàllu droit nag ci biir yëglekaay bi di enquête nag moom ma ngay enquêté nag ci dogal gi nga xam ne bàyyeekoo na ci juróom-ñaari sages yi nag bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bi xam ne ne nag waa conseil constitutionnel jamono ji nag li waral ñu neenal bi la dogal nag bokk na ci date nga xam ñu jàppoon ngir amal élection yi nag amuñu benn sañ-sañ nag ngir dàq ko wala ñuy yokk nag mandat njiitu réew mi conseil boobee nag la mu jàpp bokk na ci daal moom amul nag sañ-sañ ngir jàpp dat bi nga xam ne rek moom la ñu war a amal élection yi waaye nag bàyyee na ko kilifa yi nga xam ne rek ñoom ñoo gën a compétent ngir ñu jàpp ci nu mu gën a gaawee nag bés bi nga xam ne ca lañ war a dem nag ngir amal ci woote njiitu réew yi juge Cheikh Ndiaye mi nga xam ne rek amaloon na ab plainte ko ci waa parti démocratique sénégalais moom nag bokkul ci ñi nga xam ne rek dañ doon siège niki démb ca conseil constitution constitutionnel la tey jii ci ngoon nag ab audience daañu ko amal ca palais de la république nag mu war dox ci diggante président de la république ak acteur politique yi nag mu di ab ndaje moo xam ne rek dana tënku ci dogal gi bàyyeekoo ci juróom-ñaari sages yi bu ñu sukkandikoo ci Walf Quotidien mi dellu siwaat nag ci décret boobee nga xam ne rek moo soxal luwaa bi tukkee ci report yi soxal élection présidentielle yi l'observateur moom dellu siwaat ci leeral gi nga xam ne rek leeral nañ ko ci wàllu yoon ñeel décision bi nga xam ne rek juróom-ñaari sages jël nañ ko rek jëmale ko ci convocation yu collège électoral bi yéene kaay bi bi ne Macky Sall moom jamono ji mi ngi ci diggante camouflé ak victoire assemblée nationale nag ñu tegaat ko ci place am bi nga xam ne rek ci lañ war a amal élection présidentielle yi nag war nañ koo jàpp nag balaa ñaari fan ci weeru avril bi ñu jëm nag jeexaleeg libération mi nga xam ne rek ma ngay dellu siwaat ci bàyyi gi ñu bàyyi ay détenu yoo xam ne rek dañ leen a jàppoon làq leen jant bi nag mu di ay prisonniers yoo xam ne rek ñu bëri ci ñoom